asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu mbokk yi seetaan ñu ngi fii ci kanamu Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdoul Khoudous mi yor kàddu njabootu Cheikh Ibrahim boroom Daaru Muxti euh, su ngeen déggee rek kàddu gi ñu yëkkati ñu xam ne ndigal bàyyeekoo na ci sang bu tàdd bi di Serigne Bassirou Anta Niang imam xalifatu Cheikh borom Daaru Muxti mu jëm ci waajtaayu gàmmu Daaru Muxti sëñ biit jox ne ndigal ni mu ko daan baaxoo def rek mu jaar ci Serigne Bassirou mi nga xam ni moo yor kàddu njabootu Cheikh Ibrahim boroom Daaru Muxti ngir ñu mu yëkkati ay kàddu soññee ko jëmale ko ci gàmm sunu boroom nag dogal mu dénk ko waa fédération Islaahu Daare nii ci njiitu Serigne Modou Balla Mbacke ak mboolem ñu ngi ko àndal ñëpp ak mboole njabootu Cheikh Ibrahim borom daaru Muxti gi yëpp. kon ñu ngi fii ci kër Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdoul Khoudous ñu bàyyi ko rek mu yëkkati kàddu jëm ko ci bis bi xam ni mooy gàmmu mu war a tombe ak fukki fan ak benn war a tombe ak fukki guddi ak ñaar di doon altine tombe ak de 18. ci weer wi ñu nekk kon mbokk yi rek ñu bàyyi ànd ak sëriñ Bachir Mbacke moom sëriñ Abdul Xuduus aousu billahi min sheytaan rajim bismillahi rahmani rahim laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil muminin raufun rahim fa in tawallaw faqul xasbiya allah la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim wa sallallahu wa sallama ala sayidina wa maulana muhammadin alqail innama buistu li utammima makarima al axlaq wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi alqail laylatu mawlidi nabi laylatu maxawi riyabi laylatu maxawi taxabi wa toori si taassumi wa ummatihi wa sallama taslima asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi maa ngi leen di nuyu di yëkkati sama kàddu ci ndigalul sëriñ bi sëriñ Basiru Anta Ñaŋ Mbàkke mi nga xam ne moo di xalifatu Cheikh Ibrahim Daaru Mawti ñu ñaan yàlla sunu borom mu yàggal ko te may ba taxawaay bi nga xam ne moom la taxaw ci kër boroom Daaru Mawti yàlla yan ko ko ci toolu sëriñ tubaab bi ci diine lislaam sunu borom may ko kattan mu mën koo jëfe ni mu ko bëggee ak nam ko waree te nu ànd ko ak moom di ko ñaanal it sëriñ Muntaxa yi nga xam ni moo di xalifatu Cheikhul Xadim di yàlla sunu borom moom itam mu defal ko loolu kattan ak wér mu gën a mën a taxaw te nu ànd ko ak ñoom sëriñ bi nag di sëriñ Basiru lii di gàmmo gi nga xam ne moom la njëkk jiite ci bi mu nekkee di borom daarul moxti sëriñ bi sant nunu yëkkati kàddu yi jëmale ko ci mbooleem ñi nga xam ne ñooy njabootuk boroom daaru moxti moo xam ñi nekk ci biir dëkk bi la moo xam ñi génn dëkk bi la ak fooy mën a nekk ci biir réew mi wala sax ci àdduna bi bu ñu neexee ndax àdduna bi gëndaloo na sëriñ bi wax ne dafa bëgg gàmmu ni nga xam ne ne lañ ko baaxoo woon a defee ci daarul yi ci ndigalul Serigne Touba borom daarul mooti daa ko taxawee noonu ginnaawam njabootam gépp daan ko taxawee noonu ba agsi ci moom tey noonu la bëgg ñu taxawee ko noonu moo xam mm, ci ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci wàllu njàng mi la wala ñi nga xam ne ñoo leen cay jàppale taxawale leen ca ba la bëgg ñu amee ko nañ ko bëggee nañ ko bëgg a taxawee ñu taxawee ko noona kenn ku ci ne xam nga la la ci sa waru gar sëriñ bi bëgg nag mbooleem nuñ ko daan defe ak nuñ ko daan taxawee na gàmmoog Daaru Muxti daan mel naka jekk dafa bëgg ñu defe ko noonu bu fekkee ne mën na ko weesu sax mooy la ko gënal ndax lu tax mooy la ko gënal mooy mbirum sëriñ bi ci boppam moo bindoo noonu dafay loo xam ne waxtu wu nekk démb ji du la fàtteloo de waaye dina tax sa xel dal bu baax ci ne lii de faw ko na la ko jiitu woon mbirum sëñ moo bindoo noonu dafay mel ne daf lay fàtte loolu la jiitu woon ndax jàkk moo ko waral ndax mbirum sëñ bi moo bindoo noonu moo tax mu bëgg népp euh, nu mu daan mel rek bu ko mënee raw mooy la ko gënal te yaakaar nañ incha allah noonu rek lay mel loolu moo tax euh, bi mu ko yëkkatee teg ko ci loxo yi islahu daarin yi nga xam ne dafa fekk naka jekk ñu tegoon ko ci seen loxo waaye mu laat ko ci e, ndigal yooya nga xam ne moom la fekkoon ay kilifaam joxe ko mu yeesalaat ko ni mu yeesalaate yeneen yu baree bari yoo xam ne daa fekkoon ñooña wéyaloon ko mu wéyalaat ko ba ci sunu kàddu yi sax looloo ko waral loole moo tax mu tegaat ko ci seen loxo te gën ko dëgëral nag ci kaw boole leen ak sëriñ Abdou Samad mi nga xam ne moo di doomi sëriñ moo daaw balla te may wax ne bu fekkee ne yéen de yéen a ngi ànd ak moom ci lépp li ngeen di yëkkati ak tëral incha allah lu kanam rek lay jëm ndax lu baax rek lañ xam ci moom te lu baax lay digle moom lay jëf kon nag bu sëriñ bi yëkkatee kàddoom soññi ñëpp dañ leen jëlaat tegaat leen ci loxo yi sëriñ Abdou Samad ngeen ànd ak moom ci liggéey bi ndax bi nga xamee ne sëriñ bi dénk na ko barab bi jaamukaay yi ak barab bi borom daaru moot yi nga xam ne moo di li ci penc mi lépp ak bii a bi nga xam ne moo war moo war liñ ko liggéeyloo ci lii ñuy def ci loolu la bokk ndax bu ko sëriñ bi dénkee li tàmbalee ci mbaar mi ak ak jumaa ji ak yaari kër borom Daaru Muxti ak li wër kër yi kon ci lii ñuy def ci foofu lañ koy defee kon dafa mel ni ci toolam ngeen di bay kon nag li ci def lépp na dëppoo ak moom ngeen ànd ko moom lu ngeen ci def mu yëg ko xam ko loolu itam da cay baax ndax ci euh, environnement bi ci ngeen di liggéey ndax lépp ci penc mi la kon nag Eh, yaakaar nañ ne incha allah nu mu meloon dana dana ko dana ko dana ko raw ndax eh, eh, lii mu wax léegi ne mm, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne dañu ma yónni ngir ma mottali jikko yu baax yi nga xam ne moom laa fi fekkoon loolu day tekki ne jikko yu baax amoon na fi waaye lu gën a baax mooy la gën li utam bi ma ma makaarimal axlaaq kon am na lu fa nekkoon ndax itam maanaam lu baax moom naka jëkk day am waaye nag ca ñañ la doon ca ñan la doon amee ak naka lañ ko doon defee loolu mooy la nga xam ne mooy wuute léegi kon kii nga xam ne sunu borom dañu ko dañu ko da koo yónni boole koog noonu te mu lamboo jikko yu rafet yëpp kon yaakaar naa ne guddeem gi dafay guddi goo xam ne e, warees na ca mën a mànge loo xam ne waxtu wu nekk jikko yooyu nga xam ne soxla nañ ko lool mu soppi ko te baax soxla nañu lool mu soppiku te baax ndax jamono toll na foo xam ne jikko yi e, tilim na lool lool ci ñu baree bari waaw xëy na du ñëpp de waaye bari na fu mu tilime lool kon nag ñi nga xam ne e, yàlla may na leen ñu mën a génne e, makaani bu xalaax yooyu wane ko ne mooy lan ak li nga xam ne mooy mooy dundiinu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci li nga xam ne moom la Serigne Touba wone nga xam ne mooy sunu bunt ci moom mooy ki nga xam ne moonu won nenu jaari bu ngeen bëggee àgg ci moom defee leen nii su ngeen bëggee am ngërëm moom muy Serigne Touba njàngaleem yooyu yëpp yaakaar naa bu ñu ko di ko génne dana ci baax lool rawatina ci guddi gi nga xam ne mooy guddi euh, ganikat nag Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne euh, keroog bi mu amee euh, la dëgg feeñ caaxaan nëbb loolu nag yaakaar naa ne incha allah borom xam yi dinañ ci waxtaan ànd kook ñi nga xam ne ñooy islahu daare ni ci li nga xam ne moom la ko Serigne Bassirou Anta ñu bëggee mu amee mu mu amee ko noone ci gàttal daal mooy sëriñ bi dafa bëggoon ñu yëgle ne gàmmu gi day ñëw na dafa bëgg ñu dox kon na nga xam ne na lañ ko baaxoo war a defee ci borom daaru muuti ak njabootam ba agsi ci moom di ko gàttandu di ko di ko di ko teral di ko gunge mu ñetti guddeem yooyu nga xam ne naka jekk noonu la ko daan noonu la noonu lañ ko daan amalee bëgg ñu amale ko noonee yen itam sas bi nga xam ne moom ngeen ci am ngeen taxawee kon na ngeen ko daan taxawee ba weesu sax fa ngeen ca daan fa ngeen ca daan fa daan yem di sàkku itam nag mboolem ñi nga xam ne dañ leen ci daan jàppale di jàppale islaahu daaree nii ba li ñu bëgg a yëkkati ak li ñu bëgg a taxawal ci ndigalul sëriñ bu mu mel na ñu bëgg kenn ku ci nekk nag la la ci war xam nga ko nga ànd kook ñoom ndax lu leen ci waaye defal sëriñ bi nga ko defal lu ci waaye def itam sëriñ eh, sëriñ bi yëg na ko te dana ko xam te dana ko leer te dana xam ne itam def nga sa wàll ci liggéey bi kon nag mboolem ku ci daan jàpp ku nekk na ci jàpp ndax nag amuñu lu may borom daaru mooti te ba Bassirou Anta Diop mooy sunu borom Daaru Muxti kon li mu bëgg ni mu ko bëggee bu ko ni amee rek nu itam li ñu bëgg dinañ ko am loolu rek moom mooy mooy li nga xam ne mooy mooy gàttal bi kon nag saswaa ngi noonu te jàpp naa ne di ngeen ko mën a bay rawatina bu ngeen ko àndee ak sëriñ Abdou Samad mu sëriñ Modaw Balla mi nga xam ne lu baax rek la ñu xam ci moom te te lu jub rek la ñu xam ci moom lu rafet rek la ñu xam ci moom yaakaar naa su ngeen euh, su jàllee bañ ne démb la woon wala barke démb la woon ñëpp danañu xam ne euh, mel na nam daan mel weesu na ko sax la yaa jàpp ne moom la ñuy wax ndax mbir mu euh, mbirum sëriñ bi noonu la mel ni ma ko waxoon ci njëlbeen day mel ne tey june da lay fàttaloo démb euh, te loolu moom euh, defe naa ne du du lu ñuy jàngaat loolu kenn ku ne dund nga ko ci sa digganteeg sëriñ bi kon sëriñ baa ngi fàttali ñëpp dafa nekk fàttali nga xam ne fàttali wuñ fàtte wuñu ko waaye nag fàtte fàttali gu ànd ko soññee lay doon fàttali gu ànd day taxaw taxawaayu soññee loolu la ndaxte ñëpp xam nañ ne gàmmu Eh, mooy mooy mooy fukki fan ak eh, benn ci guddi muy fukki guddi ak ñaar ci ci ci weeru rabiul awal loolu mooy mooy gàmmu léegi nag su loolee xam gi ñu ko xam tëréewul nag soññeewaat gi da ciy am ngir doomu moom mu bindoo noonu moo tax muy muy koy fàttalee te di ko soññee ngir bëgg ñu defee ko nañ ko daan defee eh, ci ci jamono borom Daaru Muxti ci ndigalu Sëriñ Tuuba ba agsi ci moom su ko defee lépp lu ci waay def rek nara leer ne di nga ci am ngërëmam di nga ci am ngërëmul borom daaru muuti te loolu mooy ngërëmul sëriñ Touba kon nag mbir maa ngi noonu sëriñ bi eh, soññ na ko ñëpp fàttali na ko ñëpp eh, eh, tegaat na ko seeni loxo yàlla may leen ci ndam na ngeen ko daan amee rek ngeen amee ni ñaan yàlla sunu borom nu fekk waat ko déwén yu baree bari te yàlla yàggal sëriñ bi sunu kanam lii daal mooy li nga xam ne moom la ñu santoon ngir ñu wax ko bokki taalibe yëpp ak dëkkandoo yëpp te ñaan yàlla sunu borom mu nangul sunuy jaamu mu nangul sunuy ñaan fekk loonu ko déwén yu bëree bari ti fàttaliku bu baax itam naka ni daaw sëriñ Ablaat mi nga xam ne moo ko jiitu woon te yàlla defandikoo coobareem ci moom sunu borom dolli ko ay yërmande ki xéewal te ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom la fa nekkal ñu ko jiitu woon ak ñi nga xam ne ñuy toppaat ginnaawam ndax lépp am na fi sunu borom moom am na ko te yaatal na yàlla na leen yaatalal te sunu borom may sëriñ bi mu yàgg sunu karam nu yàgg ci ginnaawam maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk yi ni seetaan ak dina diglu kàddu yi moo bàyyikoo ci Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdoul Khoudous jëm ci ñi nga xam ni mooy waa fédération Islahu Daariñ ak mboole njabootu Cheikh Ibrahima Fatick ci wàccaayu gàmmu ndax ku wax gàmmu di nga wax Cheikh Ibrahima borom daaru Moti ndax kenn ku ne xam nga ni Serigne Touba Khadim Rasoul Cheikh Ahmadou Bamba moo joxoon digal borom daaru Moti di wax ni wax ko ni ko nañ ko gàttandu gunge ko ni ko sëriñ bi waxee ndax gan koy am da nga koy gàttadu gunge ko bu dikkee nga teral ko kon loolu moo waral ñetti fan yi di ñaanal baax euh, kii sëriñ Bassi sëriñ Abdoul Khoudous mi nga xam ne moo juddu woon fédération bi sunu borom yokk leeram ba ci sëriñ Cheikh Khadi ba sëriñ Abbas mi xam ne heure bi daaw rek ñoo moom noo ko àndoon di ñaanal baax sëriñ Bassirou Anta Niang imam xalifatu Cheikh Ibrahim borom Daaru Muxti ak mboole njabootu Cheikh Ibrahim borom Daaru Muxti gi yëpp jërë ngeen jëf